asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ak xarit yi ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaar di delsi ak yéen ci l'émission des émissions di nuyu sénégalais yi nga xam ni ñi ngi ñuy seetaan ci biir réew mi waaye itam di nuyu sénégalais yi nga xam ni ñi ngi ñuy teewlu ci bitim réew di am ci ñëpp li ñuy tuddee mbégte ak kontante saa suñuy jàkkaarloog yéen di nuyu Abdou Top mi nga xamante ni moo nekk ci xarala gi di ko ñaanal jàmm di nuyu sénégalais yëpp yi nga xam ni ñi ngi ñuy bàyyi xel ak kum ci mën a doon moo xam ki nga bokkal gis-gis ak ki wuuteeg yow gis-gis te it di la dolli ci gis-gisam parce que jàpp naa ni lépp lu dox ci àddina ñaar yooyu ñoom ñooy yi ànd mooy ñi nga xamante ni gisee na ñeneen ñooy defar ñi gisee ndii loolu nag di àddina di àddina ba nëga ni loolu bokk na ci li koy doxal tey dinañ waxtaane rappeur boobu nga xam ni moom lañuy wax riifu nga xamante ni ginnaaw bi mu demee pale ba génn am na ay kàddu yoo xam ni yëkkati na ko waaye itam dinañ waxtaane xaadim sàmb mi yëkkati ay kàddu jëmale ko ci li nga xamante ni bii mooy li xew ci pénc mi dinañ waxit ci concert casserole bi nga xam ni opposition bi woote nañ ko waa Yewwi wax ni nañ ko amal ëllëg maanaam trente 31 décembre ngir fas yéene tànqal président de la république dinañ wax tamit ci discours président nan lañ ko gisee ak lan moo ci sunu xalaat mu mel ni kon ñeent yi ñooy yi nga xam ni ci lañ war a waxtaan waaye balaa dara di xew dama bëgg ñu àndandoo déglu rappeur boobu nga xamante ni moom la ñuy wax riifu ginnaaw bi mu duggee pale ba génn kàddu yi mooy yi nga xam ni moom la yëkkati je vous nga Pape Sidi su ma bañee sori tuuti je te dis Macky bi ma gis ak Macky bi ma gaa yi doon wax film bu baax Macky Sall bi ma gis man palais ak Macky bi ma gaa yi doon wax neuf Macky la. du ñaar de neuf Macky yu différent la barki Maulana Cheikh Ibrahima Niass Macky joxuma mille francs ma téye joxuma cent juddu naa ba toll nii sama papa ma yor ak sama yaay xamuma Macky Macky Sall bi ma gis pale lan nga gis moom yaru dal accueillant souriant nga dëgg ngay wax mu mais Pape Sidi ban président mooy nangu ñu wax la ñu war la jox parole booy bu ndaw këf micro bi te defeere woo booy bi man loolu ku ma ko def du ma la tëj ci kaso bi dama lay sànni si océan bi mais Macky Sall dafa am jalu toog déglu ma comme ni may waxee nii xam nga man gars yu bëri dañuy foog réew la du réew nii yow xam nga man je suis comme ça parce que su may wax damay gëdd ndax dama dër dama dër donc Macky dafa ma déglu may waxee ak moom terme bii pale mu ne tekk toog si ginnaaw yëpp ay généraux la. mu ne tekk coow koo xamante ne ni c'est le chef de la constitution le chef suprême des forces armées nga toog ak moom wax ko si ay nitam yoo xam ne magi li ma ko njëkk a wax mooy man la Rivo artiste rappeur activiste Kaolack quoi ne ko man maa daanaloon Mariama Sarr bi nga bi nga tegoon Kaolack waxuma Mariama Sarr Kaolack de Mariama Sarr bi nga yow bi nga tegoon Kaolack wala déggoo ma magi ne nii di ma déglu ma xóotal ma xóotal argumenté tijji yaatal wax si suñu autorités yi Kaolack am na ñoo xamante ni sekkuñu teraanga man ak ñoom te wax naa Macky ne ko ay jàmbaar lañ Macky ne nii di ma déglu ma xóotal ma xóotal argumenté tijji yaatal wax ci suñu autorités yi Kaolack am na ñoo xamante ni sekkuñu teraanga man ak ñoom te wax naa Macky ne ko ay jàmbaar lañ barki Cheikh Ibrahim donc leneen jàngoro Kaolack yëpp ma wax ko Macky Sall parce que loolu moo nekkoon sama droit mais bi may génn palais wallahi dama rus parce que image bi ma amoon si président bi ak ni ko gars yi doon ja jàng wa diaboliser bi xam nga man bi may dugg palais sax damaa takki nombo damaa ragal ne bu ma maki bu ma gisee dafa may warax jërëjëf Abdou Top ñuy rafetlu bu baax a baax liggéey bi di wax ni kàddu yi riifu yëkkati ñun ñoo ko déggandoo mu wax ni Macky bi ma gaa yi doon wax ak Macky bi ma gis ci pale bi du benn muy ñaari Macky yu différent Macky bu dal Macky buy ree wuteeg Macky bi nga xamante ni bii danga yaakaaroon ni boo ko gisee mu def la leneen waaye makki bi mu gis Macky bu baax la di kàddu ki nga xam ni moom lañuy wax riifu ma jàpp ni am na sañ-sañu gis nit estimer ko loolu lu mën a ne la waaye li am solo ci àddina man dafa am rek lu ma ko bëgg a wax ne ko nit buñ la wax ci nit rek nga jàppe noonu nit ki parce que avant que dara di xew doon na yëkkati ay kàddu di ko jëmale ci président Macky Sall waaye warta nekk koo xam ni dafay doon sikkim gestu di ko yóbbaale que ni diw bon na bon na sans pour yow nga am lenn loo xam ni yaa ko gisal sa bopp parce que li mu wax dafa mel ni nit ñi ñoo ko formate tegal ko benn Macky boo xamante ni bi amul Macky bu existé wul mu gis moom beneen Macky boo xamante ni bu existé la bu wute lool ak biñ ko doon wax liñ lay wax warta tax nga sukkandiku ci loolu boo defulul constat yow ci sa jëmmi bopp ba gisal sa bopp waruloo tëb tëb rek di wax et pourtant Riifu nekk na koo xamante ni kii rapport bu engage la di wax yenn wax yi di def yenn débat di expliquer ndekete kon ki ñu doon expliquer dafa mel ni xamutoon. léegi nag gravité li mu doon wax ci li romb moom ay nit a ko doon influencé kon muy wax sans pour autant que mu def ay constat moom dafa waroon a wax jàpp naa ni ni ni ma gisee woon yi ak ni ma jàppee woon yi mais dafa juum daal di ne liñ ma doon wax kon moom nekkul ni moom moo gisoon amoon ay jugement yu mu defoon ci président de la république mais dañ ko doon wax te loolu mu nekk lu dangereux parce que moom itamit daf ñu doon wax ndekete kon ki ñuy wax moom deful benn constat mais moom dañ ko doon wax loolu nag ma ci wax képp koo xamante ni ki yaa ngi yëkkati sa kàddu di wax war nga mën a def différence entre li ñu lay wax ak li nga xam ne yow yaa ko gisal sa bopp ba booy wax nit ñi da ngay wax ne liikat lu ma gisal sama bopp la encore une fois riifu tagg président Macky Sall amul kenn ci àddina kuy am sa gan di ko toroxal même bu gan gi defee jikko joo xam ni jikkooy baadoo la yow mi ko dalal da ngay xam ni wolof nee na gan yomb naa muñal ganu président ngeen ak noo mën a doxalee ni président doxalee rek noonu la mën a doxalee c'est parce que ganam nga moo tax yu bari mu mën la ko bàyyi nga mën koy def mais bu dee da nga bëgg a président ci diggante bu gàtt lu matut ñaari waxtu wa ilaa lu ëpput ñaari waxtu nga bëgg wax ne mooy ki gën ba tey yaa ngi ñuy bëgg a dugalaat ci lu ñu xamul donc riifu jàpp naa ni juum nga ci ni nga xamante ni bii noonu nga waxee ak ni nga xam ne noonu ngay juger nit parce que nit doo ko juger ci benn mbir bu ndaw ndaw rek nga bëgg ci juger nit ki wane ni moo fi gën wa illaa ci lu ndaw rek nga bëgg koo juger ne mooy ki gën a bon donc il faut que nga xoolaat ni nga xamante ni bi noonu ngay juger nit pour mën a tagg nit wa illaa nga mën a xas nit il faut mu am temps boo xam ne bi war nga ko mën a may nit ki donc di lalaaye bi biir rek di waxtaan ak yow moo tax ñu jël la boole la ginnaaw bi ñu déggee say kàddu ci pénc mi ñu xamal la loolu mbokk yi ak xarit yi jëmm ji nga xam ni moom ngeen di gis moom lañuy wax xaadim sàmb jot na ay saaga yu bari yoo xam ni bii saaga nañ ko ko mais ñi koy saaga dañu xamul ni xaadim sàmb xamoon na ni bu waxee li muy wax ba pare dina jot ay saaga mais saaga yi nga xam ni moom lay jot ak wax yi nga xam ni moom lañ koy wax moom lay jëlaat mu doon ci moom lu muy monnaie ji ngir président ma mam ko doon waxal ne ko gis nga de bi ma la waxalee li ma la waxal gis nga liñ ma yekk ci internet bi ak liñ ma def bu boobaa nag saaga yi ngeen koy saaga mooy doon récompense bi nga xamante ni bii moom lañ koy récompenser neexal ko c'est parce que dañ naan sacrifier na boppam ngir am lii ndax nag alal jar na li ngay def nga di ko def mu wóor la ni boo paree nit ñi dinañ wax lu ne sa wayjur wi nga xam ni doonu ci dara ndax loolu alal jar na ko lan moo jar loolu ci àddina nga taxaw wax wax joo xamante ni bii boo ko waxee ba pare bir na la ni ay saaga dana la ca fekk mais jaral na nit ñu bari jàpp naa ni ñu jël seen jur dem monnaie ko joxe ko ngir am ci ak koom goo xamante ni gii du doon dara je pense que loolu mooy li nga xam ni moom la xaadim def muy xaadim sàmb ngéwél nag dañ ko séentu woon ci leneen lu dut lii parce que xaadim sàmb di ma mu taxaw di tere nit ñi naan ñuy saaga moom ndekete ab saagakat la parce ni muy nattee ni ab saagakat la Sonko dafa am ay doom li muy wax moom la joxoñ wax ko ko wax ko ay baayu jàmbur taxaw ci digg pénc mi nag wax ko ay baayu jàmbur nattoon ko ci sa bopp ay ñeneen wax la wax ju em ni yow ji nga leen wax jëmale ko ci say waajur moo tax nit balaa ngay wax dara war nga ko natt ci sa bopp xool ba pare ndax lii ngay wax loo war a wax la ndax bégal nit jar na nga toroxal nit ngir bëgg ci bégal doomu aadama loolu je pense que ni nekkul loo xamante ni bi luy yoon la xaadim réew mi du yow yaa koy joxe yow xaadim sàmb nekkul ni yaay joxe réew mi réew mi sénégalais yi ñoo koy joxe sénégalais yi ñooy tànn ñu seet ña ëpp ci sénégalais yi kañu tànn ñu jox ko réew mi benn kart nga am ni ma ko amee keneen amee ko sa carte boobu rek nga war a mën a taxaw ne réew mi sama carte bii duma ko yëkkati di ko jox man diw wala diw waaye président sama carte bii de yow yaa ko ki ko moom loolu mooy li la war nga yem ci loolu mais ñeneen ñi xamoo ana kan la tànn bés bu jotee ñu dem tànn ka leen neex loolu mooy dëgg bëgg lu neex nit warta tax nga def loo xamante ni bi saw askan doxewuñ ko géwél liñ ko xamee woon mooy def lu rafet fekk lu xotteeku mu ñaw ko géwél loolu rek mooy li nga xam ni moom lañ leen xame sagal ay nit waaye duñu toroxal mukk doomu aadama donc xaadim defe naa ni la waxoon laay dellu wax ni sa askanu ngéwél gi ngay woote ne ci nga bokk sax man dama koy conteste c'est parce que jikko yi nga wane ci pénc mi bokkut ak ya ñu xam ci askan bi nga xam ni mooy askanu ngéwél mbokk yi ak xarit yi ñi ngi jëm ci li nga xamante ni bi moom la ñuy tuddee 31 décembre mu am concert boo xamante ni bi war nañu ko amal muy concert casserole ñenn ñi ne président di wax askan wi tëgg est-ce que loolu am na njariñ ma ne leen loolu message bu fort la boo xamante ni bii président war na ci jàng parce que li mu doon mooy yow mi nga xamante ni bii yaa ngi wax ñépp daan toog di la déglu di la bàyyi xel di déglu boo waxee ba pare ña nga xam ni ñooy ñëw sax di wax seeni wax dañ daan toog di ko déglu ngir ñooñu gën a leeral point yi nga xam ni yaa ngi koy tudd muy loo xamante ni bi sénégalais yëpp dañ ko jëloon jox ko loo xam ni gëdd gu mat sëkk la boo demee ba bés waxtu wa jot nga war a toogaat jàkkaarloog askan wi nga daan jàkkaarlool ñuy toog di la déglu askan woowu mën a génn di tëggi pot ngir wan la ne la lii ngay wax yitteelul leen xoolal la nga daan wax ak la nga daan jëf parce que jàpp naa ni bu fekkoon ne la nga daan wax daan nga ko jëf askan wi di gis ni la nga leen daan wax ñu ko daan jox yitte di toog di déglu yaa ngi ko doon jëf je pense que kon saa yooy toog di wax daañu am jotug toog di la dëglu ngir xoolaat lan nga leen di waxaat ak fan nga nar a jëm ak ñoom waaye boo demee ba nga xamante ni bi loolu amatul kon mooy wane ni ñoom jàpp nañ ni lépp li nga xam ni yaa ngi leen koy wax rek bokkut ak li nga xam ni moom ngay jëf kon concert casserole bi ñu bari nee nañ président nee na kuy tëggi bool du ko wuutu ndaxte mooy tànn ki koy tuddal walla déedéet jàpp naa ni ki nga xam ni mooy tëggi bool kooku bokk na ci ñi nga xamante ni bii ñooy ñii tànn moom kenn la rek ci ñii tànn képp ku yor bool di tëgg li président am ci réew mi nga ci am muy benn carte te carte boobu mooy bi nga xamante ni moom ngay def ca mbañ gàcce ga kon président bu fekkoon ne mën nañoo tànnal koo xam ne moo koy wutu kon Ablaye Wade tànnoon keneen ku mooy moom waaye askanu Sénégal wi ko porté woon ba teg ko fi mu ne askan woowu ñooy tànnaatal seen bopp te ñooy xool ana kat moo leen di wuutul kii fi ne kon nekkul ni moom mooy yor dogal boobu loolu nekkul ab cëram mën na tànn nag ki nekk représenté partem waaye mënta tànn ki nga xam ni moom moo war a jiite réew mi loolu sénégalais yi ñoo koy tànn mbokk yi ak xarit yi discours président bi je pense que boole naa ko sax ci njëlbeen gi boole naa ko ci li nga xamante ni bii moom laa doon wax léegi parce que président de la république lenn rek mooy li nga xamante ni bii ci laa koy xaar te jàpp naa ni su ma sañoo nit bëggoon naa kàddu googu mu yëkkati ko jëmale ko ci ñi nga xam ni ñooy askanu Sénégal ñu bari buñ ma waxee ne ma lan ngay xaar ci président ci discours bi lu ci bari dama naan awma lenn lu ma ciy xaar parce que jàpp naa ni président li mu waxoon waxaat ko waxati ko nga xam ni chaque jour discours yi day continuer di répéter soxlawut mu di wax kenn waaye su ma ko doon yóbbante di ko xelal wax ko lu mu war a wax ngir askan wi yéwee ko lenn rek mooy li nga xamante ni bii jàpp naa ni lu mu gëm la parce que li nga gëm wax na ko. vidéo yi ne fi mu bind ko ci téere mu ne fi muy lan muy mbirum troisième mandat amul kenn koo xam ni dana ma fa séen ñu bari nag ñi ngi koy jañax di ko wax ne ko déedéet bul bàyyi ñooñu dañoo jafandu ci yëre président ne ko bul bàyyi waaye président mooy ki nga xamante ni kii moo jàpp mbir mi te sénégalais yi moom rek la ñuy déglu te dafa am loo xamante ni bi dafa jàkkaarloo nag askan wi yëpp wax leen ko mu nekk kàddu yoo xamante ni bi ñëpp doyloo noon kàddu yooyu ngalawaay buñ ko bëmax bu mu nangu mukk ku ko bëmax ne ko weddil say wax li nga waxoon neel lii dama ko waxoon rek waaye duma ko def di nga tal say wax déedéet waaye na dëggal boppam wax kàddu gi nga xamante ni gi jàpp naa ne bu ko waxee mooy indi dal ci dëkk bi ginnaaw moom bi mu nangoo ni jeexal na sénégalais yëpp yëg ni jeexal na ay ministre am yi ko daroon yëpp nangu ni président jeexal na nga sàll xamal ni jeexal nga jeexal nga parce que yow yaay ki ñu wax ne ñaari mandat yi amul kenn ku ko mën a tegale ba noppi di dolli ginnaaw jeex na nag yegg nga ci papa pëm nga la rekk demal te boo demee di nga fi wàcc way woo xamante ni bii say sët dinañ ci jariñu ak i say sëtaat parce que dinañ xam ni problème mu mandat Sénégal kan mooy ki ko regle yow yaay ki nga xam ni yaa ko réglé ñi lay jéem a puus bugguñu la seen bopp ak seen njariñ képp lañ bëgg ñu ci bari tey ñi la ciy puus démb bu ñu sañoon lii nga yor doo ko yor te bu doon ñoom ak ñoom rek doo ko yor ña àndoon ak yow di xeex ba tey nga jot lii ñooña anañu kenn ku ca ne fi mu toll nii tey daanaka nekkatut ci yëf yi ña àndoon di la xeex tey ñoom ñoo bëgg a taxaw ne yow lañuy xeexle wallaahi newuñu ci dëgg te gëmuñu la buñ la dugalee nag ci kàddu gi leen rek moo la ciy mën a dugal mooy nga wax benn kàddu daldi ne dangay ngay te bu boobaa perdre nga lépp maanaam buum nga rëcc na la donc nag li ma lay xelal fiñ lay puus bul ko nangu ilaa yow mi diini wutalal say doom way wutalal say sët way mën nga koo am weesoogul donc la sàll bul dugg ci loolu mbokk yi ak xarit yi ñu ngi am mbégte ak kontaante saa suñuy jàkkaarloog yéen ci l'émission des émissions di kontaan ci Abdou Top mi nga xamante ni bii moo nekk ci xarala gi di joxante dig daje beneen yoon ci l'émission des émissions jërë ngeen jëf